Waly Seck li mu def xamu ko lu tax nga wax loolu ah Aliou bu ku mel ni moom ku ko may oto li nga def xamoo ko ndeysaan ndeysaan waaye mën na ko fay yal na ko yàlla fay daal bu feebaree guddi sax ñun dañuy am problème pour yóbbu ko hôpital ndeysaan ndeysaan bu ma damay arrêté taxi yóbbu ko ba tali ba taxi bu mu jub da ngay daw ndeysaan ndeysaan Aliou ku ko xamul doo ko mën a doo ko mën a doo ko mën a yeb guddi oh yaa ko yaa ko Waly Seck yal na ndawam yeb Waly Seck lu mu yóbbu yal na ci jot ci barke moom maa kontaan ci moom ndeysaan waaw wax day leer. waaw waaw saa nga yàkkam. yéen a ko moom yéen a ko moom. lenn rek la soxla nag.

sama xarit waaye damaa soog a jàpp sama jàpp waaye yéen ngeen si rek gars yi da sëñ bi naan la waaye seet xale bu pare boobu xale bu jigéen boo xam ne boobu xale boobu xam ne jamono yëngal jamono ànd ak jamono di dem waaye seet xool bu la yëngal neexul waaye bu seet benn jàmm nag am ci àdduna ma yor ko di ko joxe waali bi nga waral ko tey ma jox ko ko ndax waali ah dina ko ànd ko te yor ko nag waali bi nga xam ne ñu woyee doom ñu woyee doom nag noo tudd ale bu jëm ba jëm jëm jëm ci ma wax yàlla lool dëgg la yàlla moo Wally Seck ma yëngal nga soog ay ca Wally Seck yaa yëngal nga soog Wally Seck yaa yëngal nga soog ale lan mooy sa soxla Wally Ballago Seck xam naa nag loo tax sa loxo ma dem ndax yow loolu laal mën na loolu laal masha allah yal na la yàlla aar yal yàlla sàmm sa làq yërul Wally man de ñaari yitte yi rek laa xam waaw damaa jubal diine gala le 6 décembre waaw mais vendredi bi di ñëw boobu it bëgg naa la duy sa loxo boo ci mënee jàpp tamit waaye paas oto yaay mi mel la rey sama yaram yëpp puus puus bi dal na ko si ngeen moo sunu sama yaram dangay jaaxle ci yàlla oto rek laa bëgg oto bu ma yóbbu hôpital ak oto bu ma yóbbu ma ne loo ma ne xale bi ndeysaan Pikine ñëpp ko bëgg lu mu am jox na ko ndeyam wax billaahi wallaahi tallaahi fu mu nekk koo xam te ne maire nga biir Pikine yaa ngi koy jàppale waaye li mu la ñaan defal ko ko te yàlla tax sa barke waajur léegi yow ñu ne loo am defal nga ko sa dëgg la loo am jox ko sa yaay da dem nga liggéey nga jox sa yaay gannaaw yàlla ak yonent bi sa yaay jox na la oto dégg du noonu ana mbay si mbay si kaay maar nga ni guma ngooña di nga ko jox oto démb. waaw dégg naa mu ne xajul ci oto bi. la oto bi dafa xaw a ndaw. dëgg la ànd ak moom ba ñibbi léegi léegi. incha allah nga jox ko oto bi mu dem. dëgg la ah. moom léegi buy ñibbi. incha jox ko caabi oto bi jox ko oto bi na ràpp ak jàmm. jërëjëf na ràpp ak jàmm nga ràppal ko. bul wax bul wax yàlla la dàq fay yàlla fay. bul wax acca jërëjëf. merci beaucoup bu jeexee ànd ak mbay si rek man tam kontaan naa kon def noonu sama xarit yàlla yàlla sàmm la ah xaaral am naa jox nañ ma léegi six mille def ci essence dawal aca demal caw caw may leen ko waay yéen tamit tàccu leen ko waay yéen tamit waaw ba tey ñu ngi ak sun jëwrin Ale Mboup Ale Mboup ñu ngi lay béggee di la safoo di la ndamoo Ale ak bi Wally Seck def ak yow tey loo ci yëg Ale waa tey daa wane tey naa dangaa war a def te yàlla tax te doo ci boole ay wax waaw daa def te yàlla tax doo boole ci ay wax waaw ok introsé leen nga waaw baax Sëriñ Saliou Mohamed wax na ma ko mais lépp faramareen bi la sama rakk ji bañ a yalwaan rek moo ko dugal ci lii alxari ngoone de ngeen xari ngoone bàcc xanaa di ko ñaanal yàlla jàmm kenn du def lu baax pareetu ko waali maa ngi koy ñaanal bu dee taalibeb sëriñ Saaliw bi may woote dëgg la yal na bokk ci milliardaire yi sëriñ Saaliw yi bàcci sëriñ Saaliw bu dee musuma may sama borom kër te may taalibeb sëriñ Saaliw tey tarbiyu sama rakk di ko jàppale waali yal na bokk ci maa ngi sant yàlla maa ngi sant yàlla baax. nga dama kontaan trop et puis santaat yàlla bu baax a baax sant Serigne Touba sama wasila bon kon ba bon waxuma Faramareen bi mais euh, kii yu indicat euh, bi ñi ànd ak moom soutenir ko jàppale ko ñoom it ñu ñu jar sant lañu sant naa man sama xol sedd kontaan naa man daanaka lu ma génn lu bari mais ñii maa ngi leen sant di leen sant yéen itam waa presse bi seen jëf rafet na seen taxawaay yaatu na yàlla ko yàlla yàggal saxal ko yokkal leen defal leen avancement daal. ñëw fii xalaatoon nga ne tey di nga am bég bu bii nga bég. non non non xalaatuma ko woon vraiment parce que même biñ ko inter interviewé ci ginnaaw sànq nee na ma ndax ni ma def baax na man ko effectivement loo wax baax na puisque man xawma ci dara mais sant yàlla. yàlla na leen yàlla defal jàmm rek kontaan bon vraiment ren moom lu ma ko ñaanal xeeb naa ko puisque li mu def man la war mais man mënuma ko xaw ma ko kon ku ma ko defal dama ko koy sant di ko ci remercier ba sama xol sedd na kontaan naa yàlla ko yàlla defal lu koy njortam daal yàlla am na ko mën na ko yàlla ko yàlla def dafa am lu ah. am lu am man c'est la première fois ma ma gis Wally sur scène mais Wally il a un xam nga Sénégal dañuy wax di wax mais lii ku mu doy lii dootul doy kenn fu ni ne nii ñëpp seen xol dafa tooy parce que am na li gën a am solo mooy yàlla dafa ne doomu aadama loo mën dimbali jàmm même boo leen bokkulee xeet boo leen bokkulee diine boo ko bëggee dimbali dimbali ko te yàlla tax te tey def na ko ñëpp kontaan waale dañ koy ñaanal yàlla mu may ko gudd fan ak wér parce que bilaay li waale def nii sonn lu mu am rek def na ko ci taxi lépp ndax bañ a yelwaan kon waale amuñu payam dañ koy ñaanal lépp lu mu bëgg ci aaram bi yàlla na ko yàlla defal ci barke Seydina Mohamed kontaan nañ kontaan nañ kontaan nañ ba fa kontaan yem